salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum suñu mbokk internet yi safoo di seetaan Fekh TV tey nag seen émission gëm sa bopp dafa nekkaat géejuwaay euh, ñëw ci ki nga xam ne ni kenn dootu ko présenté muy euh, Ngagne Demba ñu koy wax Ngagne Demba borom géejuwaay mu nekk watkat boo xam ne ni dafa jël wat valoriser ko euh, ni mu ko valoriser mooy dafa jël métier wat wane ne tey kiy def wat war na nekk nit ku set nit ku sell ñu fekk melokaan boobu ci moom tey nag moom lañ ñëwoon seeti mu wax ak ñu parcours am ngañ dema leen nuyu di la ziar. waaw salaamaaleykum. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. waaw maa ngi lay nuyu di la fay ah di la jox sa wàccuwaay bu baax rek. di nuyu senegal gépp di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaan yàlla mbas mi fi nekk. suñ boroom jëlee ko fi. waa ba ñëpp nekkaat ci seen jàmm. waaw mooy nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay. jërëjëf. Euh, Ngagne ginnaaw bi ñu la nuyoo bu pare euh, dëgg la kenn dootu la présenté mais tey bëggoon nañ nga ñamal ci tuuti euh, kan mooy Ngagne Demba. waa Ngagne moom mooy benn doomu géejawaay bu mhm. juddoo Roi Baudouin mhm. dëkk fii ci koñ bi mhm. doon taalibe Sëñ Tuubaa ah yéen ñëpp jàmm waaw di ñaanal yàlla ñëpp am jàmm. amiin nekk koo xamante ni maanaam bari naa ay parcours nag. waaw ay parcours yi ma jaar bari na waaye loolu lépp li ko waral mooy bëgg a bëgg a bëgg a tekki rek waaw moo ko waral mhm, am jom rek gëm sa bopp gëm sama bopp rek mhm, euh, ngañ wat bii ngay def euh, bëggoon ñoo xam est-ce que liggéey bi moom nga mës a def euh, parce que bëggoon naa xam est-ce que ngañ dafa xàmmee rek dugg ci métier wat walla am na leneen loo xam ne mu ngi ko doon def avant wat bi waaw avant wat bi mooy man daa am dam mooy man kii fi jug léegi sànq mi sama mag mi Modou mhm. Samb mhm. daan naa jàng mhm. alxuraan laa daan jàng arab sëñ Abdou Karim ñëwoon fii ubbi fi benn daara fii ci koñ bi joxoon ko ku ñuy wax Touba Seen mu yor daara ji ñuy dugal ma fa may jàng alxuraan ak ay xasida ma dem ba mata jàng métier sama mag bi di Modou dugal ma may jàng métier menuisier métallique. menuisier menuisier métallique. Mhm. man liggéey ba mu yàgg sama yaay di sama ñu am kër Touba sama yaay ne moom dafay ñibbi. Mhm. ah ma ne kon naa ànd ak moom. Mhm. ñu ne comme mooy ngañ moom mooy caatu meer bi na ànd ak moom. ma dem ànd ak moom Touba. bi ma demee Touba. ba benn jour rek siburu dal ma fa bu metti rek ma daw ñibbisi. ñibbisi bi ma ñibbisee nag. xam nga Ndakaaru peex mi neex rek ma ne baal ma toog. <laughs> waaw du nga bañ ma toogee nag bëgg a kii sama grand bi na ma. Uh-huh. da delluwaat ci li nga doon liggéey. Uh-huh. waaye nag bi ma demee Touba boole woon na ma faak maa ngi daan liggéey tam menuisier métallique. foofu ba tey. waaw doon continuer waaw ku ñuy wax Jabel Kase. Uh-huh. yàlla na ko yàlla yërëm. moom sama mag daan ànd ku baax la. dëgg la ku génn àdduna. amiin may liggéeyee foofu di liggéey foofu ba ni ma fa jugee ñibbi si fii. waaye bi ma nekkee foofu tamit xam nga moom it def Touba it def naa fa ay parcours jaar def naa fa ay jaloore. wa di wat peñ ak lancet rek bo man xaalis rek la gis mbadu waaw gaay yi ku defal sa fourné ma dem jaayil la fune ma dugg fa mo raw tuba dama fa min koñ bu ne dugg na fa mbadu fune jaay waaw bobu naam naam wéccet rek buma ma man na yor wéccet rek waaw xam nga affaireu xalé uh-huh. waaw mo bu pose jotté tam ma wat peñ ak lancet gaay yi di jox ay 100 francs ay 150 ak ay 200 kon fofu nga commencé wat bi commencé wat bi hmm ma ñibisi fi ak sama peñé hmm uh-huh. waaw xam nga rek bu bi ñuy fubal ak sama gaay ak ñëpp may wat rek ñëw fekk tam suñu benn grand frère buy wat ñu koy wax Mam Bokar daan wat fii nag peeg lañ seet mën a wat lool mm-hmm. suy wat may toog di ko seetaan rek di ko xool rek mm-hmm. lu mu def bu ma demee ne dama koy def sama gaay yi mm-hmm. des fois am ñoo xam léegi ay daan wat sax ñuy jooy ndax xam nga peeg dafa safoon waaw waaye nag sant yàlla quoi dëgg ñu dem ba suñu borom def benn jour maa liggéey tam ménse métallique quoi sama benn copain na ma ngañ comme yow mën ngaa wat Ousseynou Thiam te man it maa ngi wat nañu ubbi benn salon. dëgg la ma ne ko amul problème fekk ñun suñu kër fi ñu dëkkoon. Mhm. daa am benn magasin bu nekk ci suuf. Mhm. ma gis maire bi ñu jël magasin bi nekk fa. bi ñu commencé sama grand bi fi jógee léegi léegi. Mhm. moo ma aal benn seetu. benn seetu fer force bu ma ko defaraloon. moo ma ko aal. mu wut benn seize kaw suñu teg ko. seize plastique yi ñu teg ko commencé ci wat. une semaine. ñu am weccet moo nekkoon début bi. moo nekkoon defar benn seetu. defar benn étagère. dem tuuti ma dem atelier créer fa ay chaise indi. defar ay chaise yu roulé yu baax. yu rafet indi yaa ko waaw. xam nga. ñu commencé noonu nag waaw di dóor rek gëm suñu bopp. ba yàlla def jàmm waaw ba yàlla def foofu. borom kër gi soxla kër gi foofu tam di ko toj. Mhm. woo def concours gendarmerie dem. man donc ma des fekk tamit daaw ma li may liggéey daaw ma ko yàq. Mhm. ma ñëw jël fii commencé ci nekk ci di ci góorgóorlu. ci góorgóorlu waaw gaa yi fekk ma fi rek. Mhm. ma gaa yi moom ay borom baax lañ. dëgg la ku ñu gis nga am jom rek. Mhm. ñu nekk ci di la jàppale. noonu la demee. dëgg la comme tey jii ni nga waxee ne gaa yi ay borom baax lañ. ñoom tamit loolu lañ wax ci yow. kon gaa yi ñu dem seetaani témoignage yi nga xam ne ni def nañ ko ci ngañ dem. ngañ day sunu nit yàlla boole ñu ñuy ànd ànd bu bu bu sincère nag a ah. ànd bu dëggu boo xamante ni amul jaayante amul def loo xamante ni waroo ko def lu waaye war a wax sa moroom si dëgg da nga koy def ndax man loolu lay ànd nit te moom loolu la mel. kon tey bu ngeen ko defaree émission bu ñu ko waxee ñun ñëpp lañuy bàyyi ñëw teew loolu waral sunu teewaay. seen and depuis xale la wala bi mu demee ba dugg ci wat bi ci ngeen xamante waaw sama digënté ngañ du du du du du depuis ba ñu nekkee xale eh, yàlla dafa def def na quelque temps ma ak mom c'est-à-dire doon ñew dañ la ñew fi di watu affaire yoyu xamanté nañu té ci milieu bi mu nekk man presque man naa ci milieu bobu lay lay lay dundu lolo waral ñu dem ba nek maa ngi moom may ñew fi di watu ci mom ma mu gis si man ay jiko yu ko doy man ma gis si moom ay jikko yu ma doy looloo waral suñu ànd ñun ñaar ànd boo xamante ni maa ngi moom mos mosu ñoo toog bés te déggantewuñu même bu ñu gisantewulee mënu ñoo toog bés te gisantewuñu ay bët wala ñu déggante man ak moom waaw. kon tey yan qualité nga ñu mën a wax ci ci ci moom comme tey jikko yi nga wax ne mu nga gis si moom ba mu neex la yan qualité la. waaw xam nga nit bu gisee si doomu aadama ci mom yo xamanteni yow doyna la boko ko sa bop de mën ngeen a nekkee ñaar bi si njëkk moy dëggu man dama bëgg nit ku dëggu ben deuxièmement moy dama bëgg doomu aadama bo xamanteni da nga gëm sa bop té mom loolu fa nekk ci mom troisièmement mooy dafa yéne ñëpp jam dama koy dama koy jang ci mom loolu dafa nekk ci man man doomu bu ma gis pour man da nga waru la gën té mom loolu la nekk sunu waxtaan maa moom yëpp ak suñu jëfin maa moom yëpp pour nit ko avancer la waaw te dañuy xeex si gox bi ñu dëkk muy géejawaay ñun moom lu ñu nit mën a may ak lu ñu nit mën a defal man ñun nga defal ñu ko géejawaay moo ñu ko gën a soo gisee ma féete ak moom dafa am ñaanu waajur te dafa am yërmande ci doomu aadama yi moom mii monument la dañuy wax monument diw monument la diw monument mais monument baa ngi nii bu dul monument di nekk lak ne ca kaw monument ba kii bu ko fi politiciens yi bàyyee duñ dem bu ko fi sëriñu tarixa yi bàyyee duñ dem bu ko fi xarbaax yi bàyyee duñ dem kii mën naa ne ñun banlieue bi dan koo mënta séddoo moo tax man dama mais nag dama leen a màggu dama leen a daw njëkk ca ngañ ndax dama daan ñëw fii di seet Saliou Diouf chaque jour su ma rombee ngañ mu nekk ci menuisier métallique yi lu ne ma dugg ca ma ziar ko daal di continuer dem waaye bi ma demee ba xam ni kii yàlla moo jël xolam bi dugal ci maas damaa ubbi sama xol bi mu sës ne ko danga may bëgg kaay ma wax la nan la ñuy bëggee man du tëdd te gisuma ko wala du ma tëdd te dégguma ko su ma toogee journée bu ma déggul ngañ day mel ni ku téléphone am réer ni muy mel si yéen ci gàttal daal ku téléphone am réer ni muy mel noonu lay mel si man su ma toogee journée dégguma ko dinaa fexe ba leb crédit wala ma wuti beneen téléphone woo ko ci xam ci li mu nekk après ma daal di doon tëddi mais loolu lépp moo koy def sant yàlla la liggéeyam bi yaatal na ko waaw àndum sincère liggéeyam bi mhm. yaatal na ko mhm. ku ñëw mu wat la mhm. soo amee mu wat la boo amul mu defal la te yàlla rek tax boole yëkkati ay dàllam joxe kullu ku ni lim ndax la kullu ku doomu aadama ngaañ wat na la waaye macha allah dañ koy ñaanal jàmm ndax nag eh, am na loo xam ne ci bu bu ne oto ba ca kanam la ñuy corne bi ci ginnaaw kenn du ko corne mm-hmm. xañ na daa nekk ci banlieue bi ñëpp naan ngañ-ngañ te wax jugul bant mm-hmm. waaye bàyyi nañ kook sëñ Bamba ngañ mii ngeen ñëw defal émission gënumaa siiw mm-hmm. dañ koy wax ngañ demba boroom géeje waaye dëgg la waaye gënumaa siiw kon wutuma ci moom tur wutuma ci moom lim may jox ma yóbbu sama kër ndax liggéey kat la may liggéeykat wutuma te it di ko jay ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ maa wax te jotaguma sama maam ne ñett mi ngi nii kenn du ko def di ci jëlee ndam ma ne ko maam mooy ban mooy faj ku rep suuxat ak yafal màgget ñett yi kenn du ko def di ci jëlee ndam waaye man jayuma ko dama lay wax ni ñu ni ñu xamantee rek xam man bizarrement man nitu télé la waaye man du ma seetaan télé xam nga loolu soo ñëwee sama sama sama sama kër ay National Geographic laay seetaan j'aime bien le football te li may wax ni waxuma ko pour nitu làmb yi mer sama émission duma ko seetaan bu dul direct du ma ko seetaan su ma ñëwoon fekk tey sama émission jongante ñu koy teg ci télé bi dama koy zappé dem seeti Nollywood wala seeti leneen eh, ñu toog maas boogaa nga xam ne dama xamante woon nag moom yàgg na mu nekk su ma rakk nekk suma ma xarit tàgge boo gis dafa am jàppal diw ñëw fekk ma sama kër ne ma Lamine yaa ngi def danger de ma ne ko lu tax mu ne ma ngañ ba borom géejawaay ma ne ko waay may ma jàmm yàlla mooy borom géejawaay nga naan ma ngañ dem mooy borom géejawaay mu ne ma non sarak ji ne fii bëgg Balla gay bëgg géejawaay bëgg lii dama bëgg ngeen xamante ma indi la ko ngañ mu ne ma naa ma ne mu ne ma naa ma ngañ waay waay ban ngañ dem ba fekk wallahi maa ngi waat ci alquran dégg dong la amoon ci moom dëkk naa ak moom deux ans côte à côte non moom xam na la Lamine Samba fii la dëkk mais man xaw ma li ma lay expliquer nii dama lay expliquer lu doy waar. maas ne ma garaaw dinaa la ko indil ma ne ko non nañ fa dem. mu ne ma non non yaay magam dalay fekk si. ma ne ko ok amul problème ma jékki-jékki le lendemain mu indil ma maas mu indil ma ngañ bi mu indilee ngañ dama ko gis rek bëgg ko ci ñaar dëggoom. civilisation ak bëgg sëriñ Touba te muy dëgg ci moom ma koy seetlu di ko seetlu di ko seetlu ba nangu ko ci maas nangu ko ci senegal yëpp man damaa jàpp ni damaa jàpp ni ngañ maa ci ëppale ñëpp damaa jàpp ni ngañ samam ngaña damaa jàpp ni ngañ képp koo xamante ni yaa ngi def ci moom ci man nga def kuy wax ci moom gis nga émission bi xam nga kañ laa ko yëg. dama kaa woo mu ne ma Fekh TV de ñoo fiy ñëw ma ne ko sama bakkan laa ci teg bokku ak nag bakkan umoro. non non noo non non non non non non non man dama lay wax ne la. man maa ngi lay waatal ci alxuraanu karim. ku liggéey sa kër ngay yóbbu may man su ma liggéeyee sama kër laay yóbbu ngañ sama kër liggéeyee këram këram lay yóbbu. xam naa ne kenn du ko fekk këram yërëm ko waaye man kenn du ma fekk sama kër yërëm ma. te du ma fëgg mu ko buntam bii ni maas waxee léegi na ko jox ma dépense mais jikkoom. ngagn lu ñaaw sax ngagn lu ñaaw sax da koy rafetal laaj len ko serigne medoun Sey borom tawfiix mo xam jëm ji ta xam nga serigne medoun Sey borom tawfiix lan nam ñakul fayda lan nam doyaduwul du defantu du waxantu man dama am ci mom lo xamni serigne medoun Sey ñi am ci mom bari wul a jégué gën yey on ne s'entend pas beaucoup mais bis bu yalla sak teranga joggé ci mom ñew ci man te buggul ku ko wax kon li wax ni deug la mais buñu delu ci waté ci gis nga place bii ngay gis nii peut-être ci ci gàttal nga xaw ko xeeb nii amul kilifa bu su bu fi dul dugg fii amul kilifa bu dul dugg fii muy kilifa diine muy kilifa aada muy kilifa cosaan est-ce que man d'accord naa d'accord ma ak ak maas tey tey laa lay wax lu ku ma faal waxoon golo gologo ba mu gedd gerte ga muy am ta ba ma maas dafa ne léegi ngañ moo fi dàq wat maa bañ dàq fi wat ngañ ñu ko fi dàq wata fi nekk ngañ ñu ko fi gën a rafet a fi nekk waaye xam nga lu mu leen gën jikko <laughs> jikko mooy nit ngañ bu la toogee barki alxuraan ndeysaan ndeysaan li émotion la euh, kuy booy wax sa dañuy xale dañuy dañuy sentir na xool ngay waxee ànd ànd ci àdduna lii rek la lii mooy wane na seen ànd bi du du ànd naxante bëggoon nañu xam tey li nga xam ne da nga def parce que wat bi dafa bëri ay branche comme ni ñu koy waxee am na ñoo xam ne lii dañuy ñuulal am ñoo xam ne dañuy tent ah, ma gis fi tamit nga wat fi kenn wat boo xam ne nii wat bi non seulement gaaw na mais rafet na. waaw xam nga kooku moom dafa ñëw rek yaakamti bëgg a watu. Mhm. xam nga tamit wat da ngay lépp. Mhm. wat dafa laaj concentration. Mhm. parce que nit ki mënut a yaakamti ñëw. ngay wax rek. Mhm. wala lu ne nga dugg si. Mhm. liggéey la. Mhm. jox ko fulla ak fayda. parce que temps amatul. dëgg la dëkk bi dafa xat. kon ku ñëw rek da ngay def fulla ak fayda. mu dem waaw. ñuulal bi tam aussi. waaw tamit wat moom xam nga ñii dañuy bëgg ñuulal ñii duñ bëgg ñuulal parce que àdduna léegi toll na foo xamante ni. ñuy góor muy jigéen nit ñi dañoo bëgg lu rafet. dañoo bëgg lu baax Sénégal. dëkk bu bëgg lu baax lañ. ñu bëgg lu rafet lañ. sénégalais lim mën a fay si bopp dañ naan États-Unis ak ay affaire ay France ak yooyu. Mhm. ay 6500 dañuy fay ak ay ay ay yooyu de fii li ñuy wax États-Unis ak ay France yëpp Sénégal dañ koy fay de. ah kon ça veut dire que prix yi daal ñi ñoo ngi fay prix yi ñuy fay États-Unis ak ay. France ak ay Espagne. Mhm. Sénégal fii dañ ko fii fay. parce que fii valoriser wu métier wat parce que tey dañu booy wat sa dum ay téeméer nga koy jox ay 300 et li yow yow tey gis nañ tey nga valoriser ko non seulement ku la fekk sa place da lay Ah, ci ni nga xam ni non non la lay fekkee en plus ni nga defaree sa place ah, nga lu lan ban secret la lan. waaw xam nga watu témèr mhm. xam man man man fay nañ ma cent franc. Mhm. fay ma 300 fay ma 400 cent. Mhm. waaw nit duma fay sax ma wat ko. deug la waaw parce que aduna day dox. tey su ma toogee xam tat suma nit ñi ñëwé di watu. mu tang jër man dajala na dara ma mut ut clip ñëw teg ut ben affaire ñëw tek parce que sama bët sax man jël na affaire yi. waaw fi ma teg fi ma teg sama sama bët du fii mm-hmm. Mm-hmm. waaw parce que man bëgg naa salon yoo xamante ni ay international salon yoo xam ne ay partout dans le monde ñëpp koy tudd ñëpp koy tudd parce que loo gis rek gëm-gëm la gëm-gëm la gëm-gëm boobu am naa ko mm-hmm. te nag fii laa ko bëgg a am ci banlieue bi parce que tam liñ naan kuy wàll sa dëgg tëkkul la te banlieue bi nag fii la lépp nekk ñun wax dëgg yàlla fii ñu dëkk dañ ko fonk waaw muy banlieue bi dañ ko fonk parce que boo xoolee salo yu nekk ay ville ak fu ñuy coow baale ñoo fiy jóge di fa watu ah. Mhm. kenn amul seen fay. kenn amul fay yu baale bi. baale fi la lépp nekk. Mhm, artistes yi mën a way. Mhm. baale bi lañ dëkk. dëgg lu leer laa la wax. mbër yi dàq bëre. ci baale bi lañ dëkk nit ñu baax dëgg. ñu am personnalité ci baale bi lañ dëkk. wallaahi téer yi mën a ñaw ak ñëpp baale bi fii li fi nekk moo riche. dëgg la mm. tey bëggoon nañoo xam tamit eh, ci eh, ñoo ngay tudd muy mbeuri de artiste yi digënté ngañ ak ak ak artiste yi ak mbeuri ndax à chaque fois dañuy gis ne eh, ay artiste ay mbeur ay ay boromi daraja ñoy ñoy ñoy ñew tay nga leen di wat am ñu ñoo xamné ne pour nga tim seen bop xolal na mais yow lolu am nga ko ci digënté ak artiste yi loolu nan la démé waaw xam nga aduna la bay man say bi biram ja bi cangaay goor deug bayu la la faal. Cheikh Ibra Faal nga doyloo maami Cheikh ndigal faale baayum góor ñi ndeysaan sëriñ bi jaal nga doyloo ngañ ngañ sëriñ bi jaal nga doyloo danga gore ajaratu caama la ni woowe sa yaay siri daaru siri daaru ko wat bu demee day des ndeysaan li la yàlla dogal waay Bayi mati munda bayi bàyyi ay way Omar Fall sayer njaay biram ji bi nga ya cangaay bay Faal hadim ngi nii tooge domu bayi ya mas boga la yàlla dogal doomu ndayu maas booga mu Seex khadim Xaadir Jilaani xayartu ma wayle leen ma wayle ma da nga wat lo ya la dogal man caat yaa may wat di wat samay moroom lii la yàlla dogal lelele eh. way lele ma ngaañ ah, ngaañ ngaañ ngaañ ngaañ seet si ngeen ku baax seet si ngeen ku baax a baax a baax a baax a baax a baay seet si ngeen koo xam ne ay xasida moo nekk ci dëndam li la yàlla dogal seet si ngeen koo xam ne ajaratu caama yaayam ni mari jaalu la xam ni ma di jaalu la xam law ma jaalu nii lu wan naa lu wooy ma waay sëriñ ma dum sey gërëm na la ndeysaanam sëriñ ma dum sey gërëm na la lii la yàlla dogal yàqu gi jawaay yaay wat Balla Gaye di wat guy gi di wat sa Kajoor di wat ñëpp lii la yàlla dogal waaw waaw di wat la dëggeer man caat yaa man wat ndeysaan man caat suma watoo yaa wat doomu nday ngañ demba yaa bëgg sëriñ saaliw borom njurul borom xëy mbayaar borom njoowan gaacaroon xëy ga nday saanum seet si ngeen ku baax <laughs> jërëjëf Thiat yal na jàmm yàgg waaw waaw gis na nga duggee waaw seet si ngeen ku baax mhm. muy ngañ demba mi ngeen xam ni mhm. baax na am na dal mhm. am na yar ñëpp a ko bëgg te ngañ day defar rek bëggul ku xuloo ku xuloo ngañ dox ci ne day di jubóole ci ñu xuloon woo Xaadim Gueye woo Mass Boga woo Pam a Fall. dañ leen jubóole ji. ngañ doon ko baax man li ma mën a seede si moom xolam rafet na. baax na mën naa wat nag wat moom da koo mën. te leneen leen yóbbul leen yóbbul leen yóbbul leen yóbbul leneen leen leen yóbbul leneen leneen. dara yóbbul leen lu dul rek. taali bi ku boo ko yëgee rek mu yëg la. li muy dund mooy taali bi. oyof bu gisee ñu neroo day xool ñu diggante boobu rafetee. Serigne Galas Mbacke moom Baye Zal mu sëñ Fallou bëgg ko lool Baye Galas. ñepp ko bëgg bay talk. fii lay tok surtout seigne Fallou ñu tok ci ngañ di waxtaan ak mom lay léeg ngañ dem ci mom mu jox koy conseil lolu yombul talibes ñi sant Fall ñepp bëgg ko mu jébbal ci wa Fall ñi sant Fall mhm. bëgg leen mhm. bëgg ñi sant sek jox leen xolam ak leppam mhm. seigne rijaal sek mu doyloo ko bax lool gay ak Cheikh ibrahim mam Cheikh ibrahim Fall man dal li ma mën a seede mooy ngañ si ngeen ku bax té télé bi nak suñu télé la ñoko mom nak borom tawfiq nak yalla ko fi yalla baye yalla sawal bu set see ngagn mm. c'est normal khadim mm-hmm. mi taxaw diko dolel mas bu ga taxaw diko dolel ngagn ngañ mm. bon nuyu way eh, continue way <laughs> wa merci Thiat wa wa ngagn ci ci question bi ma nekkon rek euh, li moy firnel ne sa digante ak artiste yi euh, digante bo xamne digante bu ratax la parce que tay Thiat déplacer wu na ñew ñew ci mhm. artiste yi mhm. ñu melni ñom ñoom dama yag ak ñom mhm. première clip bu caat. Mhm. tournage bi place bi bokk na ci. première clip bam ku ñeme na nga taxaw ko ragal na nga daw. Mhm. balaa ngi ñëw dal seen kaw. Mhm. jabaram di ku baax Fanta Mbaye moom laa xamoon daan ko wat. ndeysaan mu ma sama jëkkër ji day woy dama laa bëgg a présenter caat. ma ko waa d'accord yàlla suñu borom def ba ma ñëw seen buntu kër. mu a ma caat fii ma gis ko mu a ma fii laa dëkk. mu ne ko fii nga dëkk croisement Sam mu ne ma ana caat mu ne ma mi ci biir mu dugg mu présenté ma ko. ma ko comme léegi yaa ngi dégg. Mhm. yàlla suñu borom def. Mhm. maag caat yàgg lool. barki sëñ Bamba jaar fu ne. Mhm. am loo xamante ni fi ma jaar ak caat jaar mu fàkk kuy woykat si àdduna. ndeysaan waaw du dara nag. woykat yi ma xam ci réew mi du jeex. dëgg la waaye moom daa am fu ñu jaar. day am ñoom li ñu naan dund danoo dund mhm. mu doon ku baax nag mhm. xol bi dara néew si lu mu yor joxe ko dëgg la barke sëñ Bamba caat moom mention spéciale mhm. su doy wax si moom fi laay fanaan ndax li ma parcours sama parcours ak moom fi laay fi laay fanaan dëgg la non seulement baax na mais dafa koo xamante nii sunu mag la muy Malle Mbaye mën a way lool ndeysaan ñoom caat ak ñii ñëpp jox ko cër mu doon jëmm ju baax nekk ci géejawaay gii doon jàmbaar doon gor yaa ngi ñuy am suñu rak suñu rak yu fi nek ñu ñom Sidi seen début fi lañu fek la muy Sidi job sama rak mhm. première avance biñ ko njëkk jox 80000 francs maa ko jox lu mu mëna wax way ci aduna te première avance bi wax ko jël te ko ci loxom sama copain ma lay wax naan gendarme la ñoo bokkoon di wat mhm. jabaram don tak jabar mhm. suñu borom may ko tout tank muy ngenté ndeysaan manako ko dëkk bi xat ñom caat ak ñëpp géej programme amul kuko zel manako wol Sidi jox ko comme mi ngi tek ay orchestre ci terre basket beeg yoy di jeng jox ko. munama munama mun def mo wo Sidi. bi ñewé nako 80000 la fi nek demal fay sunu wo ada ki ko njëkk zel tama ada lu tud mana ma wo woo ko wool aada. Mhm. woo ñaari doom persili mhm. ale ak benen boy bi ko zel ko clavier ak mhm. ak magay moko zel sabar limay wax lu leer nañ la mu na la won vidéo yi man wo mas boga nako kay di ko wax nit ñi ñu may ma woo sama gars yi ñoom aboog fàlloog ñëpp ñëw di ko taxaw ci bunt bu wooyee ñu dugg di ko yëngalal di ko may mhm. ñu naan siidi siidi noonu la demee mhm. ñu am suñu rakk yu fi nekk nag mhm. tamit ñoom boo yi bari na géejuwaay bu fa bëri talent fa bëri talent loolu moom dëgg la boo yëpp nag suñu borom mooy def la ko neex màlle fi ñëw di woy ñoom caat ak ñoom ñëpp jox cër nag topp si ginnaawam yaa dégg ñoom siidi bi ñëwee caat lañ fi fekk muy yëngal yaay deg mhm. waye gis nga aduna dafa doy war mhm. nit ñi nañuy teey ci aduna ndax gis nga affaire du way mhm. sun borom moy tuddu app ci nit say joté mu def la ko saf lu wér la ñu mëna way deg geej way ne tek yaay deg ar nek lo xamanteni lima ci xam dafa bari sama mag bi fi jóge sank man Seigne Abdou Karim mën naa moma yar man ci ay jang la xam daan and ak Malik Seck diko aw ay Cheikh Diom Mbaye barke Serigne Bam ken dak moon jang boy bareng fi jang ni Baara Diouf daan mu zoal may and ak Mor Kassé mu moo njëkk yóbbu Linguère dama daan toog ci gamaat ay gamaat lañ daan wax gamaat. di aw ay xaadim gay nii di aw ay. Mara Seck barki Serigne Ba ñu ñamal tuuti tamit non xam garaawul non loolu garaawul. non ñamal mbir la rek loo non garaawul mbir la dimbali ma mbir la. yaa ngi dégg mbir la barki Serigne Ba koor gi da daan dëgër maag caat ànd ñuy woy ñuy woy ay programme yi. ay programme yi tabala kon ngañ benn booy la boo xamante ni li naan li naan li naan li naan bale balesar caat waaw tontu caat tontu garaaw xam rek moom dafa maa bëgg a dugal ci la waaye caat wuy ma caat wuy ma law lu wana watala jërëjëf watala naay kaay nii rek yow moom sama waay rek xam nga moom daam fuñ jaar waaw xoola garaaw daam fuñ jaar moom dama ne la caat damaa xam dëgg la waaw banlieue bi dafa yaatu bëri ay talent baa ci sëñ Bamba lu garaaw laa lay wax nii suñ borom nag moo ma nattoog ñu bëgg ma fii amul ay xam nga fii yàlla rek fi nekk ay watkat damay dégg si moo ci nit ñi ñuy wax ay watkat ak ay karaw ak ay yooyu gis nga nit ñi nañ bàyyi xel ne suñu borom rek moo fi nekk dëgg la nit ña daan gore sen ndaya daan gore ak sen baye ba tey ñu gore man ak nit ak nula yalla mëna may ak dara jóg ñu nga mëna a mëna am so ñëwee wat rek la xéx yow nga fay ma li may fay nga dem soxlo mo li nga am maa ngi lay ñaanal yalla na yok mhm. téguma kenn bëtt bark señ bamba mhm. luma am doy ma dëgg la luma amut baxna man señ tuwa rek la doylo mhm. di doomi gor man ay nit ak ay wax yi nit ñi di wax ak ay karawu nit ak ay yooyu mhm. yooyu dépassé naa ko dëgg la maa ngi yeneen esprit sénégalais la esprit yooyu dama ko mhm. jël dépassé ko mhm. parce que nag li fi nekk ci karaw lépp ci dëkk bi ku ko fi jële jóg fi dëgg la watkat yi saa ñu xëyee wat tuur siwoo damay waxal watkat yëpp tey saa ñu xëyee tuur siwoo karaw karaw yi ñuy dajal ñu ci ay mbuus lañ koy dajal bi otomali ñëw ñu teg ko ci mënuñu ko woon ken mun ko gas ko mun koo suul ba nit ñi dalé wattu ba léegi ñaat àll ku juddu mag da ngay wattu ba kéro ngay dee rek mhm. kon nit ñi nañu bayyi esprit bobu ñu def ci xélu nit ñi mhm. ñi def lu bon ña ngay def lu bon ñom ñom ak yalla la mhm. ku wara gëm yalla nga gëm yalla ta xam suñu borom fi nek deug la amul artiste bi amul ni amul naa man yalla suñu borom la yaakar artiste bi lan la buy artiste day way ni ko dag tiké dem baliko ko kon mom joxe cër dong la mën mun ta joxe lenen muy mbeur mi mbeur mi mbeur dong la nit kese comme nit ñi su dé bëri nit ñi ñoy dag tiké dem supporter ko kon ñooñu ñooy artistes yi. Mhm. kon àdduna joxante cër la. Mhm. ak joxe respect. Mhm. yaa ngi dégg. dëgg la waaw may sant woykat yi ci cadre woykat yi. di gërëm woykat yëpp. ñi nekk géejawaay su ma limee dinaa juum. ak mbër dafa bëri ay woykat yu géejawaay yoo xam te ni samay rakk lañ ñu fi nekk. dëgg la ñoo xam maa ngi leen ñaanal jàmm ak wér. amiin mbëri nag moom yàgg na ak ñoom. lu mel ni de Guiers 2 commencé wat ci mbër. Lac de Guiers. waaw kalaafam. bu kaa zeli député. ñëw di jaay ay carte membre la de guerre ñu njëkk jënd carte membre la de guerre ci la bok ci nga bok man ci la bok mhm. bo ma ngi wat ta sun 1000 francs la ko jëndé kon gañ dafa yag di taxaw. yag mhm. na taxaw way dama ci yag hmm dañ nan yoonte bi neena fa nga dëkk. hmm bëgg fa nga dëkk dafa bok ci jaamu yalla dëgg la fi ma dëkk dama ci dama dama ci dama ci yag sonn. dëgg la. mën na ne ñi fi wax ñu bari dañ fi am ñu jaar ñu fi jaar ño xam te ne bu lim seen tur. Mhm. Nyom non lañ mel ci géejaay ni nga mel ku leen dëpp micro ñoom it lañ mel ni fi jaar ñu mel mhm. sama mak sama xarit sama lépp lu fi mel mhm. sama xarit sama siak, mhm. pap mbuub sama wai, pap diop sama mak siak modou samb ak seex mbuub ak xaadim waaw fi jaar ak caat seek lamine samba nga xam ne koku, kooku sama mag la sama lépp la amet ay dara dëgg la malik gàkku laat diop ñooñu samay mag lañ neex naqari ñooñu samay mag lañ ñooñu daa am fu ñu ma teg bëgg ma Lat Diop mhm. Lamine Samba mhm. Malick Gakou mhm. Ahmed Aïdara ñooñu samay mag lañ yaa ngi dégg dëgg la mooy nuyu nag monsieur le maire donte nag fi ñu nekk nag mooy sunu maire fi lañ dëkk ci géejuwaay mooy sunu maire mooy suñu maire dëgg la parce que keroog bis bi lu ñu xewle fii nag bu ñëwee taxaw wax ko te yëkkati dooleem jàpp ci def ci muy Aline ñu koy gërëm ak madame Aïda Sow parce que tam ñooñu tamit donte ay xale lañ nag waaye seetaanuñ ñu nag. dëgg la luñ soxla ñun ak Néné Tall. Néné Tall Néné Tall ministre. ministre de la jeunesse. nekk ku baax ñoom ñoo ñëpp lu ñu xewle dañuy ñëw sëkkatal leen fëgg leen ñun benn fëgg la ñuy fëgg muy doomu géejawaay war a dem Grand Théâtre wala Sarano. ñu ñëw ne leen jàpp ci ñi yéen lañ am. bu leen ko seetaan. Ah, bu leen seetaan xale yi ñu ñoom it ñu jënd bee yëpp ba fees. dëgg la de dee mbëri dee bëri ñoom Balla ak ñoom Lac de Guiers ñëpp ñu si jàpp mhm. ñaan yàlla ñooñu yàlla suñu borom fayal ñu leen mhm. amiin te wax ne seeni rakk kontaan nañ ci yéen tey métier bi ngay def ni est-ce que am na ay xale yo xam ne ni euh, yaa leen ciy jàngal ñoom tamit bañ ciy gis seen bopp waaw métier mi mhm. yor na ci ay xale yoo xam ne ngi nekk ak man am na ñoo xamante ni ber naa leen sëñ Abdou moom dafay ñëw rek toog ah. fi di jaay tangal am nga ñëw benn booy ñuy wax sëñ Abdou dafa ñëw toog fi di jaay tàngal ndeysaan su wat muy xool fekk maa fi nekk Aziz ak Ousseynou mhm. su may wat muy xool su may wat muy xool bu demee jàpp seen booy di étifor comme yow ni nga doon def rek waaw après benn jour mu ñëw fi ànd ak benn booy bi jaay tàngal ma ne ko étifor di mhm. ma ko maa ko wat ma ne ko yaa ko wat yaa dëgër fit mu ne ma ko wat ma a ko bu subaa nga ñëw xëy si ma xool mu ñëw xëy si ma xam ne kii su ma ko defaree dina mën dara mhm. ma ne ko léegi bàyyil tàngal ji ñëwal di xëy si fii ci place bi saa yi wàccee ma jël ma jël ma xam ne xam naa li tàngal ji jar. nga jox xam naa li muy gàññe ci tàngal su wàccee ma jël lu ko jox. ne ko lii dencal lii boo mënee jox sa yaay dara jox sa yaay mu maay sama taaw yaay sëñ Abdou. borom xol bu rafet mu nga dëkk ba Kaffrine. Mhm. ma dem ba xam ne mën naa wat benn jour mu jóge Kaffrine dama fa Kaffrine dafa amul coiffeur yu mën a wat man ko tee nga faa xool bu nekkee am nga place bu baax nga samp base xool lu muy joxe. Mhm. suñu borom boo demoon place am Kaffrine da ngay kontaan. ndeysaan mu dem ba ubbi fa place di liggéey boo wàccee garage Kaffrine ko ne sëñ Abdou muy ni yóbbu la ba place am ma nekk fekk sama rakk Aziz. boo xam ba ma sancee place ba léegi maa moom a nekk mu bëgg ma lool. fonk ma. Ousseynou moom it noonu. place bi seen man place bi dama ba mu baax. nekk ay xale yoo xamante ni ñu ma ko fi indi moom it. di ko jàngal métier mi muy Cheikh Abdou àdduna day dox. lii su ma sañoon nekk ci yeneen projet man it. Mhm. ubbi yeneen place yi mag di dem ak a ñëw ñoom ñuy liggéey. waaw wan tamit ñoom it tamit ñuy dem ak a ñëw mhm. parce que li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene parce que ay doomi jàmbur lañu mhm. te su ma sañoon tey ku ci nekk mhm. yokku waaw noonu laa leen ñaanal ñoom di leen ñaanal Cheikh Abdou Aziz Ousseynou yàlla nañu yàlla defal jàmm waaw maa ngi koy ñaanal baax a baax parce ay booy yu ma jàppale lañ nag ci place bi waaw léegi tey bëggoon nañoo xam comme ni nga ko waxee projet yi tey jii nii eh, gañ gañ fañ la teg bëtam fi ne ci ci ci wat bi waaw fi ma teg parce que c'est tegaguma ci sama bët. hmm bima je ba dajalé sama tout dama ne naa dem États-Unis hmm suma démé États-Unis je mhm. am yenen yu ma fa jangat yu ma fa doli balaa mat six mois ma duggaat Je fa am dajalé ko. parce que suma fa démé di jangat di am yu may jàngaat du je it may dugg ci yenen place yi di gor gor ma fa am buma ma duy ko sama corner mhm. si sama beneen place. bu gëna a ci bi la waye xayna sun borom. visa ma yóbbu sama Facebook yóbbu fi ma jaar wane ay wat yoo xam ne dama ko daan wat di ko filmer mhm. yi may wat di photo mhm. ay watu aar ay zorin yu bari yoo xam ni ay international ñu leen wane ci télé yi ñuy watu te man xam naa ne samay wat la wat maa ko wat yaa ko wat parce daa am sama copain bu nekk Ibisa mu ñuy wax Modou Ndiaye Modou Ibisa benn île boo xam te ni star yu bari fa nañu daje mhm. watkat ba fay wat dama daan wat lu rafet di ko sànni mu koy def

dëgg la mu nekk droit d'auteur waaye mm. fii loo fi droit d'auteur fii loo fi wat suba keneen wat ko da nga a topp naan dëgg la mënoo mënoo ko Sénégal moom mooy lool noonu la demee mm-hmm. ah, mm-hmm. waaye nag samay projet mm-hmm. yéene naa yeneen place yoo xamante nii dama fay teg samay booy ñuy wat ubbi yeneen place yoo xam dama fay jàngale ay wat booy di si wat parce que tam ku nekk métier moo nekk da nga ñaan yàlla mu yokku parce que wat ndam métier noble la te nit ñaa ngi bude place bu xawa a tane dëgg benn samedi bu neex rek mën nga génne lo fayé place bi mhm. bu ñu waxantee dëgg te yàlla suñu borom tax mëno wat semaine ba semaine del te amoo amolo fayé place kon wat metti bu noble la mhm. té tamit niki nekul ku lek lepp jóg fi mhm. ñun ñi dañuy dem ba amoon ben pa bu daan waxé fi fuk ak juroom ñuko koy wax pazak fuk ak juroom pazak tey jii am na ñoo xam bu ñu seetaanee émission bi nañu ree ba ay grand yi bari ba ci taw ak ñëpp xam nañu pazak <laughs> fukk ak ba la daan watee <laughs> kooku bu génn àdduna kooku bu dekk waatoon ñu ne ko wat egg na ñaari junni mu ne déedéet déedéet wat egg na junni mu ne déedéet wat egg na mille francs mu ne loolu amul dëgg la wat egg mhm. kon àdduna moo demee noonu àdduna day dox kon tey daal liñ déggee sa projet yi mooy tey ngañ bëgg na tey wat bi muy wat yegg fu nekk ci ci ci àdduna loolu moom bëgg naa ko yàlla na ko ko yàlla def mhm. yàlla na ko yàlla def bëggoon nañ tamit nga nuyoo gërëm sant ñu tàggatoo nuyu mhm. mooy sama gaay yi maa ngi nuyu Xaadim Gueye mhm. ni ma ko waxee sànq mhm. nit ku ma fonk la ku ma bëgg di nuyu Mass Boga nit ku ma mhm. fonk ku ma bëgg sama seex waaw man damaa dem ba mujj gi ñu man ñun dañoo am suñu groupe boo xam dañ naan mafia bi parce que ñëpp ay seex lañ parce que ñun ñëpp dañoo yéenante jàmm Pape Pape Diop guddeeg bëccëg ni mu la ko waxee du fi jóge Pape Mbuub du wàcc te jaar fi xool ma xool nu ma toogee mu nekk ñoo xamante nii ay nit ñu nit ñu gore nit ñu baax ay nit ñu am valeur di sant Baye Galas Mbacke ibnu Serigne Saliou moom fii lay toog. ndeysaan guntu fii moom daañ ko utal benn saison moom spécial su xëyee chaque jour bu ngoon jotee day génn fii lay toog. ndeysaan fii place bii daara yi Sëñ Tuubaa la. Mm. ak daara yi mag ñu baax ñëpp fii lu baax lañ fi wax suñ gémmiñ gi ay gémmiñi garmi la wax ju baax rek lañ fiy wax. suñ nopp yi ay noppi garmi la lu baax lañ ciy mm, dégg. ciy dégg suñ bët yi ay bëti garmi la lu baax lañ ciy xool. Mm-hmm. keneen ku fi ñëw di fi indi waxi jàmbur waxi keneen demal ñun waxuñu ci kenn. ñun jàmm rek la ñuy wax jàmm lañ yéene ñëpp. Mm-hmm. ki ñu fi yàlla tegal muy président Macky Sall di président Macky Sall mi fi yàlla teg. Mm. mooy suñ président ni ko suñ xalifa général waxee nangu nan ko. ñu koy ñaan yàlla mu gestuwaat population bu baax. Mm-hmm. gën a mi jóge fi. Aline Sall mi nga xam mooy maire Guédiawaye mm-hmm. wax dëgg yàlla te yàlla suñu borom rek tax man defalu ma mosuma may juróomi dërëm. Mm-hmm. waaye wax sa mbaaxu waay du wàññi sa mm, du wàññi sa mbaax dara. Alin Sall lim fi jël ci ay jeunes xawma nim ni mu toll mhm. samay jarbaat yu ma xam ci mbedd mi yu du jeex ay sama jigen ñi ngi liggéey ci maire bi mhm. même bi sàncay travaux yi dañ leen fay ndeysaan yaa dégg mhm. mu nekk tamit maire bo xamanteni maire bu baax la di ñaanal yalla may ko wër di nuyu nak benn maire bo xam moo ko di nga ne ngañ dox mu nuyu ko mi ngañ job maire mbambi lor moma may terrain gor jëlal terrain bi nga tabax ko nga dëkk fi barke seyna mohammed Ngagne Diop maire mbami lor ngi koy ñaanal jàmm ak sutura amin diko ñaanal yalla mhm. lim bëgg moko xam yalla nako sun borom yeggale ligéyam parce que tam li ñaan li ñaan dama dem yup ay mbokam mhm. mbok yëpp diko mhm. ay yëpp diko kon mak Sall la gess la gesuwaat Ngagne Diop mbami lor jëmu ju bax la di nuy jarbatam Demba waaw di nuy nak mère mère Medoune Seye borom tawfeex. borom tawfeex kooku moom mooy maire mooy li ñu naan maire yëpp dafa am dañoo am koo moo jël maire yu maire yi joxaat ko tawfeex. ndeysaan. géejawaay bu amoon ñett yu mel ni moom géejawaay amatul jeune bu fiy génn di ñaan kenn lenn mbaa jeune taxaw ci mbedd. lu wér nga wax li may xam naa si dara. Mhm. man mhm. lu mat samay samay samay lu mat samay lu mat ñaar fukki morom ëpp na ko su may lim damay juum. Mhm. xarit yi may àndal amul koo ci gis ko doo dawal oto man ñaari oto la ma may. barke Seydina Mohamed damay toog ba tabaski mu ne ma sa xar a ngi nii ma ne ko am naa lu ma jëndee xar joxal mag ñi mu ne ma dinaa jox ñëpp waaye yow da am par force jël sa ne ma ne ma du ma ne ma xam naa ne yaag maas maas sa seex la day yar ay xar te buy xaram yaral na la xar mhm. léegi enveloppe sa enveloppe a ngi nii ak enveloppe maas chaque année chaque année mu def ko mbas mi ba mu njëkkee am bañ ko ba mbas mi bañ coowee mbas mi la njëkk a wàcce ay conteneur bëgguma lu ko neex mhm. man du ma géwél boo xamante ni damay waxal nit ki ci lu ko neex. dëgg la uh-huh. wàcc ay camion kër gu ne mu dugg fa jël fii laa toog mu wàcc fi ay diwliñ ay ceeb ay lépp ma taxaw di ree kii ko kii ma ko wàccee ba mu ko wàccee ba mu wàccee jal ko fi lii la ma def dem yoonam waxaatut ak man amul moom ci ku muy topp bëggul luñ filmer bëggul luñ foto bëggul dara. day ñëw rek tegal la fi dem yoonam. loolu moom dëgg la parce que amuñu fayam sax turam di jóg ci ci ci ci télé bi. médecin la boo xamante ni na ko mmh. Sénégal bàyyi xel. Mmh. jëm ju bax la ju mën la def man duma fi nek di wax lu nit amul lima xam ci médecin traditionnel du jeex mhm. ci réew mi mhm. waye mom lim mën dama wax manama budé ay tanki mekk ak ay yene detaay jaru kon man duma tok toog ci damu damay wax dam wala ben boy mu fajj ko man ma dem sama yoon mhm. kon amna na lu ko yàlla may dama bok nak ci fami bo xam mamam ay mama ay ay ay ay ay aafisul Quran lañ don jëm ju bax di diko ñaanal jamm waaw léegi nak fumay teje tamit moy walé sama mbeuri nak Mhm. parce que ku mel ni ñoom it nag wax dëgg yàlla liñ naan nag peccum liir bu neexee it nday jaar jaar ca mbagg ya mhm. di nuyu la dëgër de mention spéciale moom sama xarit la ñoo jàngandoo alxuraan ci daara ji ma loon wax mhm. naan sëñ Abdou Karim ma ko ubbi woon nga nekkoon fa la jaar présenté ma Balla Gaye ma ànd ak Balla Gaye dara ñaaw si Balla Gaye jàpp sama loxo présenté ma guy gi ndeysaan may ànd ak moom dara ñaaw si Balla Gaye jàpp sama loxo présenté ma lees ak ab ak Elton ak kiiwaay lu ma dal. boo limee jiw. Mhm. ki waay kiiwaay ñoom Maguette Seck. Mhm. soo ko sim mhm. su ma limee dinaa jum saa Kajoor saa Kajoor ak Elton di nuyu jëf jël sama xarit nekk États-Unis parcelle la nekk waaye moom mën na ne deretam daanaka moom mën naa ne la moom moom daanaka géejawaay sax dafa dem ba mujj fi la dëkk jëf jël nekk États-Unis bëgg ma torop boo ngañ jaral naa ko bakkan jëf jël barki sëñ Bamba bëgguma lool waaw di ñaan nak geejway gi mhm. yalla na fi jamm sax amin waaw di nuyu sunu mag jo xamni nak moy jaw gëna jaw jaw waaw di nuyu Aziz ndjay sunu mag mhm. nuyu Pam Mama Pam Mama mom suma doon wax fi momit fi lay fanan ndax bëgg naa Fekh TV dem kërëm inshallah des fois mbeuri dañu am problème mu na ma ngañ diw ak diw ak diw ak diw nañ dajé mu na ma ñëwal ñu ñëw ku nekk mu wax la lim la war a wax diw yaa tooñ diw yaa tooñ diw yaa tooñ an mhm. leen ngeen nekk benn dëgg la ak Daouda Seck sunu mag ñaa xam yàlla na ko yàlla xaare àjjana amiin amiin Daouda Seck mhm. ñàkk nañ symbole boo xam ne géejawaay xamatuñ fi ñu koy waxee mhm. kooku kenn du moom Daouda ko remplacé moom amul ko koy remplacé moom na jeex na dootul amaat Daouda Seck dëgg la ndeysaan na ko suñu borom yërëm te yeexenu amiin amiin waaw di nuyu suñu mag ñi kuñ fàtte li nga xam ne dañoo juum jaan mhm. di ko souhaité joyeux anniversaire mhm. liru tey la anniversaire baax ku gore mhm. ku ñu bëgg waaw Lamine Samba sama mag gis nga lim fi wax dëgg fayam xol la lim dinaa juum di sama koñ bi ma nekk waaw Daaru wow, ak fi miij waaw Las Palmas su ma limee dinaa de say client ñëpp barke sëñ Bamba sama client di wax ne ngañ mi kontan kontaan ci yéen parce que fii du ay ngañ du li Lamine Samba wax ju du ay wat dafa dem ba ñun famille lañu famille lañ lay mënuñoo xëy te ñoo xëy te am ñoo xam ne daanaka duñ sëq sax dañuy gaa droit sa jaar fi nuyoo. Mhm. doo ko ne tuuti ñu naan café Touba ku ne dem mhm. parce fii daara joo xamante ni ay xol yu rafet rek moo fi dama naan nit bu ñëwee du fi indi safaan wala mu nit ku bon yàlla bu mu fi ñëw parce ñun dañuy bëgg di dund jàmm mhm. parce jàmm ci la lépp xaj waaw jàmm ci lepp di nuyu sama jabar mhm. waaw daara ku baax ku mu ñol nak waaw di nuyu sama dom mhm. di nuyu sama wajur bu jigen bi ma desee mhm. di ñaan yalla yagal ko fi amin di nuyu sama mak yépp di nuyu sama taw baay muy dam sambu. ñi ngi gabon Nek mag jo xamanteni momit xam nga ku ñu taxawula nak wax deug yalla waaw di nuyu ñëpp di nuyu Père Mbaw ah ko kenn du ko fàtte yor émission lamb ji ci fex TV Père Mbaw doon mag ñu baax waaw moom it wax dëgg yàlla di defar rek. dëgg la waaw di nuy ñëpp. di nuyu nag sama artiste yu ñaaw lii nga xamante ni waaw bu dee woy dañ koo mën ñoom caat seek. dëgg la Malle Mbaye. Mhm. di nuyu géejawaay gépp ku lim juum ba ci Waly Seck sax géejawaay la dëkk. ndeysaan Waly. Mhm. ñoom ñëpp banlieue bi lañ dëkk banlieue bi li ma lay wax lu leer la fi la ñëpp jugee ku mën a woy fi nga jugee lépp fi la nekk di nuyu Sidi sama rakk. Mhm. ku lim juum. waaw di nuyu di nuyu ñëpp rek mbooy ak waaw ku ma fàtte rek bàyyi mbàkkeek waaw ndóos ak dom père Cheikh Gueye ak waaw ñep suma limay jum waaw boy boy limay rek da ngay jum di nuy cameraman yi mhm. di nuy yow it sama jigen nga ku bax <laughs> ku am yar deug la vraiment ba nga ñewé ba légui mhm. émission bi yag na mhm. waye décourager wu dedet di ñaan yalla defal la jamm yow yow fex TV nga bok yalla defal le wër di ñaan fex TV ca kaw ca kanam amin fex TV ca kaw ca kanam maas boga da wax lu garaaw waye xamna ne xamoo len ko yeena mujjé ñew di ngeen lembe Sénégal bu ñep xam ko amin parce que lool ci balé bi ngeen dëkk ta balé bi ku fi nekk di ragal. ku fi nekk di ragal. Mhm. bay boo nga génn fii. dem ba ca ginnaaw àllub kaañ nga dëkk fa. dëgg la du ñu ay ñuy ragal nag boo ko déggee du cadre xeex ki xuloo. la ragal du ko loolu bu ñu koy wax si banlieue mooy banlieue dafa bëri ay nit ñu am jom. wane seen bopp ay nit ñu ñamu xuus jàll ci liggéey. Mhm. loolu la ñuy wax mhm. ragal. boo déggee ay affaire ragal du ay xeex ak. yu xuloo déedéet bi ay nit ñu noobu la fi dëkk. Pikine Géejawaay mhm. jàpp caaro yeeg ay yëmbal ak yooyu ay nit ñu am jëmu fa dëkk boo ñëwee Sandaga ak yooyu ñoom ñoo fay taxaw di rey seen bopp mhm. barke Seydina Mohamed di ñaanal ñëpp jàmm kon li témoignage yëpp yow nga noonu da nga a mel parce que tey ku sëñ Abdou Karim yar ah. yaakaar naa ne nii rek nga mën a mel mhm. ñu lay gërëm di la sant ah, ñëw nañ fi nag fekk nañ fi ay client terewul jël nga sa temps waxtaan ak ñun ndax yow moom Fekh TV nga bokk nee ñu ñoo ngi sa ginnaaw ba tey ba ëllëg